kaaw Guy Marius Sagna mm-hmm. ndax jàpp nga ni mën na yomb euh, ci cas boo xam ni tey ñu profité ci sax euh, souhaité ko joyeux anniversaire 29 janvier mm-hmm. moom Guy Marius Sagna mu nekk ci kaso bi daanaka def na deux mois mm-hmm. euh, ci koo xam ni li mu def moom la ñu gisoon yow nga def ko ci barrières yi nekk ci assemblée nationale. Hmm. image yi ñi ngi fi dara fekku la ci. Hmm. nga dem taxaw la nga amoo ci barrières yi xeex def li ngay def. Hmm. mujjul fenn. kooku ñu jàpp ko tey def ko ci kaso bi. jàppandoo ko ak ay nit ñu bàyyi leen moom cundum tey mu nekk ci kaso bi. information yi ñu am mooy dañ ko isolé ci espace boo xam ne ay terroristes ñoom ñoo fa nekk depuis ñu jàpp ko deux mois lu mat fukki nit demuñu seeti ko. loolu ndax mën argumenté ndax mën nga ko defendre ci réew mu ñu ne démocrate ci euh, démocratie la ak liberté. Mhm. papa ngañ di boole dëgg da ngay méngale lu mën a méngoo benn man image yooyu ngay wax 23 juin la woon. nëbb musuma ko miim dem nañ sax ba wax naan non ay ministre bu daan buy taal pëna buy nangu ne ko dafa taal pëna loolu man du lu ñaaw ci sama sama def-def parce que dama cee tolloon. doon ndaw jiite ay ndaw ñuy bañ ca lañ doon bañ démb moom la ñuy bañ ba tey ba ñuy dem taxaw 23 juin di bañ ñu voté loi bi benn bi ci njëkk mu li tax man la du benn bee da nga ne palais de la république bii nga ni assemblée nationale ba ñuy dem taxawi assemblée nationale projet de loi lañ doon xeex projet de loi boo xam ni. bul fàtte ni ñaari bay pouvoir lañ. waaw mais xaaral rek moo moo exécutif euh, ak législatif kon xam xam naa ni bokkul mais bu ci ne pouvoir la aussi. waaw waaw mais xaaral dama bëgg nga bañ nga dama bëgg nga ne bu ci ne pouvoir man dina man wax. Mhm. man la ma fa yóbbu woon. ok après nga wax. ok yóbbu gii ci pale bi. ok man ni ba dem palais. Mhm. di organiser wu di bañ. projet de loi boo xam ni da doon défigurer da doon dénaturer da doon yàq démocratie sénégalaise ba abadan mooy est que ñu mën a fal président ci vingt cinq pour cent mooy ñu jël mën a mën a mën a mën a mën a euh, dama jàpp ni que xëy na danga koy wax rek. parce que non non non allez-y mais waxal est-ce que comprendre mën nga comprendre. ni que démocratie sénégalaise dem ba ci cinq pour cent au premier tour mën na fal président loolu nga def ni yanu na maanaam mooy téeméer boo jël. non xeex boobu romb nañ ko. acte bi la ñuy wax fee yi waaw déedéet. Mbaye ci fee yi la ñuy wax. mais fee yi. waaw man acte bi la bañ koy def. waaw lii moo taxoon ñu def ko. loolu bu amaatoon tey ñu demaat ci giri yi mais loolu amul nga ni palais palais terrain militaire la assemblée nationale du terrain militaire. assemblée nationale pour peuple sénégalais yi la ñëpp a ko bokk ñëpp a fay dem pale terrain militaire la c'est le chef suprême des forces armées moo fa dëkk c'est le président de la république moo fa dëkk <laughs> bu doon beneen dëkk ñaan moo ko yàlla mais musiba mën na cee am ma mbay man foogoon naa nii nag. du benn non non man foogoon naa nag. du benn mooy moins sax loolu di nga ci di nga ci galant. non un peu quand ci le cas de parce que combat bi nga xam ne yow mëne nga ko. bu Guy de demoon la ma su enchaîné boppam. non waxuma loolu. non non dama ni bu demoon enchaîné boppam ci ci pouvoir euh, ci pouvoir législatif assemblée nationale xëy na. kon xëy na sax duma ma ci wax dama naan non kii day xeex xeexam nag am na droit dem taxaw pour que projet de loi bi même bu ci d'accordul mu wax xalaatam mais du benn dem songu policier yow tey dem boo sàngee policier léegi boo daggee bu tawam la waa da claire. mais Mambay bi ngeen di dem assemblée nationale. pour songu député yi la. songu ay élus lañu. déedéet déedéet kenn duggul. assemblée déedéet. papa ngañ image yaa ngi fii boobu xaw ma ban tele nga nekk sa télé yi dañ koy fii wane. bi ñuy dem c'était pour créer une pression populaire pour que ñu bañ a voter projet de loi mais xam nga ni aussi mhm. daf ngeen acte bu am solo mhm. mais acte démocratie bu am solo itam boo xam ni ba tey mu ngi des ci askan wi mhm. loolu itam mën nañ ko saluer ci président de la république bi fi nekkoon muy Abdoulaye Wade joxe autori joxe autorisation pour nit ñi mën a def seen marche dem ba assemblée nationale do autorisé wul marche non c'est que ñuy wax aussi li am baax na président de la république bu jamono jooju ministre de l'intérieur bi muy autorisé autorisé wul woon marche rassemblement lu autorisé devant l'assemblée nationale mais en deux parties ah. mais benn la rek. waaw non xaaral rek non mais baax na. déedéet mais mais c'est que déedéet dafa am président bu fi nekk bu ñu maslaa bu ñu maslaa dafa bu fi nekk. bu ñu maslaa avril ñu bëgg ko def. mais mais mu quadriller euh, Dakar kenn mënul dugg kenn mënul génn. nañu wax nañu wax li am li am. mooy est que arrêté Ousmane Ngom boobu ci jamono yooyu la li président li ministre de l'intérieur autorisé woon mooy en face assemblée nationale ñu xaaj ko ñaar ñiy jàppale projet de loi bi taxawee ni ñiy jàppale euh, ñi bañ projet de loi bi taxawee ni yàlla ci suñu borom ak engagement peuple sénégalais ñoo def ni que. Mhm. ñi ñëw pour bañ projet de loi bi mu ëpp fuuf ba ñeneen ñi mënuñ ci woon taxaw. Hmm. d' accord loolu mooy dëgg. waaw d' accord léegi Mambay Mambay est ce que mën na ñëw ci détention bi nga xam ni dafa inhumain. Hmm. ci nit. non isolement bi. xam nga visite bi. dina ñu ko may ay nit c'est-à-dire est ce que loolu. c'est pas est ce que loolu. loolu xel war na ko mën a xalaat fii ci Sénégal. non non ak nit ki lu mu mën a def. c' est à dire amul kenn kuy dugg kaso ñu yéene la ko loolu mooy benn ñaar détention bu inhumaine man peut être mënuma ci wax xam nga lu tax mënuma ci wax parce que. déjà dossier bi mi ngi ci justice justice mi ngi ciy wax. Ah, loolu mooy benn. xaaral xaaral boobu yomb na ko non mais léegi xanaa di nga wax ci nit koo xam ne dañ ko jàppandoog daanaka ay nit yu bëri. mais ñëpp dem ñibbi seen biir kër. moom mu des toujours ci kaso bi mais loolu. mais est-ce moo moo fa nekk. mais ba mu fay dem ñoom fa àndaloon moo xaw ma c'est-à-dire bugguma wax lu ma xamul mais dama dañuy d'accord ci benn ni que du moom rek moo nekk rëbës est que moom rek moo fa nekk est-ce que Mbaye est-ce que dañ ko fekk këram. Rebeuss dañuy paqueté nit ñi kon xam nga ni moom rek nekk fa. <laughs> loolu. <laughs> Rebeuss dañ leen di paqueté. waaw loolu lu nguur gi am na responsabilité. bépp bépp démarche wala bépp euh, euh, financement bu ñu mën a def pour améliorer je pense que ni que mën nañ ko def saa conditions yi lu mu gën a humain moo gën mais dama ni xëy ñu xëy xëy rek fekk ko këram dem jàpp ko ñeneen ñi ñu bàyyi. mais gisuñu leen ñu dem songu policier bi voilà mais moom xëy na moom ma man de image yi ma gis moom moo dem di xëccoo ak policier bi nee naa la Papa Ngagne yow mii boo génnoon fekk policier nga dagg bouton yoon day dal sa kaw ci kanam tuuti di nga ma wax waxi kaaraange ñiy sàmm kaaraange gi ñooñu la la loi daf leen protéger pour ñu mën a def seen liggéey donc dañ bàyyi yoon def liggéeyam ñeneen ñi ñu bàyyi tànn ñu leen ci coobare man gëwuma ni que dañuy singali Guy Marius Sagna non non. Mhm. gëwuma ko. wax nga léegi lu waa bu mu doon xeex. bu mhm. amaatoon nga xeex ko. mais li muy xeex tey. muy mhm. askan bu toog rek ñu waxoon leen courant bi dafay wàññeeku ñu xëy xëy yokk ko. parce que ba ñuy xeex loolu itam. bu loolu mu nekk xeex boo xam ni xeexu askan bi yëpp la parce que yokkute courant bi mais ñëpp a koy yëg te yokkuñu ko ndànk dañ ko yokk ba mu sës. xam nga loolu loolu nekk xam nga ñëpp a koy yëg déjà nañ tàmm di wax yëf yi nan lay demee. ni mu demee bokk na ci tey jii nii mu laaj man ma jàpp ni que war naa wax parce que niñ koy waxee ak ni mu demee du benn dañuy wax rek ca yàlla tax xam nga nee nga ñëpp a ngi koy yëg man nee naa la am na six mille cinq cent non six cent six cent cinquante mille foyer sénégalais yoo xam ne yëguñu yokk bi yokk bi ñu koy yëg mooy ñu mel ni yow ak man ñu bokkul ci tranche sociale bi ñi nga xam ne seen kër am na ñaari climatiseur garage bi ki électrique la micro onde la ñuy tàngale ndox kooku dañ ni liñ ko doon subventionné dañ koy wàññi mais ñi ngi wax yokk courant bi. mais 650 000 yooyu nan nga ko mën a justifier mais loolu dafa yomb aussi ma mbay. 650 000 mais man gisuma kenn ku ne sama courant dafa wàññeeku. wala gisuma sama courant dafa yokk ngay dégg. naa de kan mooy kan la courant yokk yow sa courant dina yokk parce que sa kër bu amee ñetti climatiseur ñaari micro onde ñeenti télé say doom di yónni ci PlayStation booy fóot sa yére machine à laver nga koy fóote mais sa courant dina yokk te jàpp naa ni boo mënee am loolu waruñu la subventionné papa ngañ xam nga kañ la ñu subventionné nga xam ni juróomi lampe la am ñaari télé ak benn frigoom ki nga xam ni bu weer deewee. mais kooku mooy kan kooku mooy tranche mooy mooy kooku mooy tranche xanaa kooku mais kooku mooy sociale bi li ma lay wax nii am na ñu koy dund. non laa lay ñaata sénégalais ñaata ñoo am li nga am. ñaata sénégalais la seen kër am ay climatiseur ñaata sénégalais la seen kër am ay machine à laver ñaata ñaata sénégalais ñooy ñooy raxase seen i ndab ci machine à vaisselle ñaata sénégalais ñoo am ay porte garage électrique ñaata sénégalais ñoo am ay appareils yoo xam ni xëy na am na ñoo xam ne ñooñu lañ wax ni duñ leen subventionné nga ni ma tranche sociale bi ñaata la concerné man la 650 000 sénégalais la concerné. mais ma ne la xanaa ay fantôme la parce que mosuma ciy gis. <laughs> ay fantôme mosoo ci gis kenn kenn ci gis kenn. boo boo jëlee sa facture ca loolu sax dama jàpp ne que Sénélec daf ko war a corriger parce que boo jëlee sa facture nga dépensé 4000 mégawatts 4000 kilowatts du moins mais tranche sociale bi dañ lay wan dañ naan la consommation bi de 0 à 150 90 lañ la koy jaaye de par dañ lay jox étagé bi. dañ lay jox ni ko étagé. mais loolu moo am ca loolu bi mu amee expliqué nañ lu tax mu am. nee nañ la budget bi c'est il faut que ñu xam lenn courant bi avant ñu koy yokk wàññi nañ ko ñaari yoon nit ñi nañ delloo si seen xel xool kilowatt tranche sociale bi ñaata la doon jar 2012 ak ñaata lay jar léegi juróom-ñetti at mënoo ci wax ni ko yokk nañ ci ñaar dërëm wàññi nañ ko ñaari yoon. courant bi wàññi nañ ko ñaari yoon deuxième wàññi bi 10 pour cent yi même industriel yi daf leen touché parce que président dafa bëggoon booster compétitivité bi Papa ngañ boo ko waxee ñu ni la lu fi amoon la 2012 bu ñuy ñëw courant buy xuy xamaj lañ fi fekk. waaw euh, mais waaye cherul loon waaw non de lan. cherul woon. déedéet xuy xamaj la dëgg la waaye eggul woon fi mu egg aussi. déedéet non Papa Ngagne bul wax lool nee naa la wàññi nañ ko ñaari yoon wàññi nañ ko ñaari yoon bu njëkk bi ay 7 et quelques pour cent deuxième bi 10 pour cent après bi yoon ñu yokku 10 pour cent ci tranche. yu supérieur tranche sociale bi loolu moo am ci juróom-ñetti at <coughs> Berlin ba ma jógee dañu yokk courant bi Londres dañu yokk courant bi parce que courant bi li ñu koy produire base bi carburant la carburant dépendrul ci ci ci ci Macky ci président Macky Sall moo ko yokk ak ay kii dafa am ay dëkk yu produire mu am contexte buy définir prix bi am ay enjeux yoo xam ne bu lii amee bu moyen honorien bu donc loolu moo koy définir loolu moo am li ñu war a xam mooy est que yokkuñu ko subvention c'est-à-dire lu état bi daan supporteel mhm. consommateur bi la état bi budget la am bu ñu nëbbantewul donc état bi moom mënatul subvention état bi moom mënatul subvention état bi état bi moom mënatul subvention état bi li mu décidé waaw état bi c'est-à-dire état bi moom mënatul ñu d'accord rek aussi du ma wax sax état bi dama naan waaw président moo décidé ni que subvention bi dafa am feneen fu ñu koy yóbbu pour mën a maintenir ak yi ñu am ak yi ñu am mooy mhm. dañuy fay trente milliards mhm. wala léegi sax xaw na ko ëpp ay bourse de sécurité familiale dañuy soutenir CMU dañuy su dañuy dañuy fay ay carte égalité de chance yooyu ay filets sociaux la yoo xam ni li muy impacté ci ay sénégalais mat na 4 millions de sénégalais yoo xam ni day laal directement ci seen dund. loolu dañ ko war a maintenir dindi loolu. léegi da ngeen koy jëlee ci askan bi delloo ko ci askan bi. defal dafal ndax déedéet. Eh non da ngeen koy jëlee ci ñiy fay courant bu cher bi. dañ koy ko ci ñeneen ñi dañ koy jël ci ñi ëppale. amul feneen fu ngeen ko mën a jëlee. mais mais attends fan lañ ko mën a